du xam lan mooy dëgg kenn du wax dëgg mhm. waaye kum mën a doon ci àddina en général mhm. sa càmmeñ boo bokkal ndeeg baay am doom doom jooju yow boo dee góor baayam nga boo dee jigéen baay bu jigéen nga baay jan ñu naan bàjjal mhm. buñ koy ngoro yëgaluñ la ñu indi guru indi luñ la ñuy yoo joxe warugar boolewuñ la ñuy takk boolewuñ la boo fa demee xamoo sa bopp salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi sëriñ àndalaa dulkat buri danu laa yónnee pour nga yàq xew mi tuuti nga pour yàq ji diggante Aby Ndour Zeyna ak Viviane laa lay wax tuuti Aby ak Bouba Ndour ñoo bokk ndey ak baay foofu yëgle amu fi xew mi xewam la war taxaar sax ñu koy yëgal beneen bi ci tegu mooy bàjjan yow yaay liggéey li tax nga am mën a am cëru bàjjan bu dëgër pa bàjjan boo xam ne day war di leen saaga ndey wala di leen xas wala di leen wax lu ñaaw wala buñ jaaree dañuy jaar neri Viviane borom xol bu rafet la jàppalul abindu dara du ko iñaan du ko bon du ko soxor Adama Bey takk na kii ci faratas yàlla ak si Muhammad takk ko fa ko war a takke te dañuy sëy lu neex sëy bii kenn mënu ci dara am na ba pare te xew mi la douze nag la dëkk bi di daanu nii nii daanoogul déedéet quelque bruit ngeen di def nii rek dan laa yónni ñi lay yónni mënuñ ci xew mi tuunu ndeyam yow mënoo ci xew mi tuunu ndeyam keneen ak keneen mënoo ci xew mi tuunu ndeyam xew mi day neex day dëgër day saf sap incha allahu rabbi le douze Viviane Adama Bey Zeyna danañ dëbb dëkk bi ba mu mën ne pëndëx pëndëx xubuy ñu teg ko seen loxo nii ëf ko mu naaw dem ci jaw ji kenn mu ci dara Viviane dafa liggéey ci réew mi nag lu baax rek la mën a am ah Viviane dafa liggéey yow la sa ndey liggéeyul Cheikh Ahmed Cissé yow mii wër di xaawi sutura jàmmoor yeeg wëri kaa koo yëg mu am problème nga contacter ko pour toog di wut loo dul wengal sa mbaxana sa yaay liggéeyul sa baay liggéeyul loolu moo waral nag ah sa yaay teel a génn àdduna parce que jur bu xamoon ne day jur lu mel na yow si amee si sa nga mel nii boo juddoo ba bopp bi génn ci biir lëf li rek day bu ma sa day nga duggaat tekki woo sarab ndayam ci Amérique gi fi nga génn lii sa liggéey mooy xaawi surtout doo joxi kaa jaxase nit ñi jaxase Sénégal yi dugg ci kaw kii woo ay nit pour ñu jëm laa jox dara fii doo fi neex lay de déggul ma te bu ma duggaatee ci ay dinaa téegal sa day bu baax xew mi moom neex rek ak saf fan fans Viviane yeeg ñu bëgg Viviane am leen jàmm te xam ne fii man maa fi nekk Viviane kenn du ko laal jaa ngeen jëf